ci premier mi-temps bi daal euh, premier mi-temps bi daal baax na mais c'est que nag euh, man man fu may déplorer euh, Sadio Mané munu Sadio Mané ci yoon normalement Aliou Cissé waru ko jox mu tiré penalty bi parce que en général kii les meilleurs les meilleurs footballeurs souvent dañuy dañuy essayer raté ay daal di penalty parce que tout le monde vit sur lui tu as vu man loolu moo tax tam bu ñu nee daal euh, Sadio Mané mooy tiré penalty bi daal man dama ci contre Aliou Cissé war na revoir système boobu. parce que ak penalty bi ñu am Sadio Mané fula gim ci war def moo des quoi fula fula fula rek moo des ci bi suñ defee fula ak fayda mën nañoo am dara ah oui mën nañoo am dara. en tout cas vraiment man di ma gisee équipe Sénégal bi pour l'instant vraiment ça fait ça mal. ndax Sadio Mané dañ koo xaaroon lu bari mais depuis lors ba léegi gisuñu dara a rendement. te man bu ma léegi nii gars bu ñu bu ñu génnee fii xam ne très bien nañu day ak Égypte wala équipe bu mag dañu war a góorgóorlu dañu war a góorgóorlu ndax affaire bi dara gisuñu dara vraiment qui est satisfaisant qui vraiment qui nous pousse vraiment à dire le Sénégal vraiment ara euh, ira de bon xëy na change bi moo ñëwagul ak bii bi moo ñëwagul mais déjà ñu joué donc on espère rek comme ni ñu defee premier mi-temps bi ñu gën a def ay effort deuxième mi-temps ñu mën a am même bu dee benn but wala deux maanaam sunu attaque bi Mbaye Diagne meilleur buteur na gé na Mbaye kay génn ah Mbaye Diagne dugg instant bi maa moom match bi boo ko dus maa ne mën naa génn Alfred continuer match bi waaj sama gis-gis. li ma xaaroon tey Aliou Cissé critique lu mu am moom dafa waroon changer surtout Cheikhou Kouyaté tey euh, Pape Abdou Cissé dañoo waxoon place am mooy euh, c'est un défenseur central xam nañu Krépin Diatta moom tamit tey euh, place am feeñ surtout Mbaye bi mooy troisième match ba léegi deful dara. Pape Abdou kii suñu attaquant suñu attaquant am nañu attaquant yu baax nañ ko dëggal ah attaquant bu nekk Galatasaray kooku war na war na war na jot dollar dara au minimum. changement yi changement man kii tam bu mu gaañuwee tam boobu laa xaw a découragé tuuti ki Lamine Sané waaw parce que moom day téye moom c'est un gars qui rigoureux te day téye défense bi bu baax loolu moo tax tam bu mu gaañuwee rek dama xaw a découragé mais naka yàlla baax na. du ma du ma mën a wax si moom lu bëri parce moom mooy coach bi man du ma coach xëy bi mu am aw Donc, euh, il, a, il, a plein, il, a, il a plein raison de, de, de faire ce classement qu'il a fait. xëy expérience am loolu la ko jox xëy na ci jàngaatam classement bi moo ñu war ci match bi moo tax mu mu classement bi baax nañ ci daal. alhamdulilah rabbi alamin kontaan naa torop torop moi je suis Casases di fête ba ma gisoon naa premier mi-temps bi Sadio mu mu dugaloon penalty bi xawoon naa jooy mais en plus ma xam ne ni lu ñuy wax jato jato mooy gaynde ci soose mu jëlaat initiative bi suñu ñaar wajur affaire mo fu la faade ak jom nak la xam nga mom moom ma sha allah baax na trop amu dara ñu ñuy mangosé waaye dina fu la faade rek di bari bari bëri mënu ñu fu la faade rek Aliou Cissé moom moo xoolal jeu bu baax a baax moom gaynde mo Aliou Cissé moom kenn mënu wax kenn kenn mënu la laa ka quoi no re kenn mënu ko wax dara quoi waaye yee saay mu neex yee saay mu nakari wa da xolal amé dal fu la faade ak jom. non ma sha allah yi la doon xaar quoi.

donc fi ñu jàpp foofu la yàlla na jàmm yàgg. victoire bi xanaa kontaan ci rek kontaan kontaan waaw xam nañu dafa métti mais comme jënd nañ ci rek alhamdulilah rabil alamin waaw xam naa football nag il faut que sénégalais yi ñuy ñuy jéem a xam ni football gagné la perte ak nul ñoom bëgguñu defet defet dafa bokk ci match ñun mënuñu ñëpp ña fa nekk ne mënuñu leen donc na nit ñuy jéem a nekk si ginnaaw équipe bi soññi leen poussé ñu dem ci victoire loolu lañ bëgg waaw.